bi xal bi benn nga jàllar bi ko inlaal mooy changé xarafu rag xarafu rag alif waaw wala yaa boo ko changé def fa beneen xaraf pour oyefal loolu moo di inlaal kon inlaal moom ci xarafu rag rek lay dugg mais nga changé ko def ci beneen xaraf change gi mën naa nekk bi xal bi jàllar bi ko nem xalaadatun boo ko defee jamu boo ko jëlee ñoom xam nga mafaayilun lay doon xalaadatun mafaayilun xam nga ne yokk nga alif léegi xalaadatun boo ne xalaa alif googu mooy alifu mafaa gi ñaari araf njëkk yi miim gi mooy tolloog kaaf gi laam gi mooy tolloog faa gi alif googu ndollal la hmm? léegi beneen alif gi nag kooku da koy soppi hamza kooku xalbu la danga jàllal bi alif bi def ko hamza kon foofu gis nga ne def nga fa lu ñu tuddee inlaal ndax changé nga arafu ragg def ko hamza te danga koo jàllal saxiifatun tamit noonu la saxaayifun la waroon doon mais dangaa jël yaa def ko hamza muy saxaayifun kon changé nga arafu ràgg def ko def ko hamza aw iskaan yi nga sukkoon ko léegi-léegi nga changé xarafu raag bi pour oyofal si sukkoon ko rek defoo ko benn xaraf de mais da nga ko sukkoon rek nga sukkoon waaw gi mhm. kooku in laal lañ koy tuddee aw xas bi wala nga xasaf xaraf raag ba comme wasala yesilu waada yaidu pourtant yow silu na waroon doon wala yow idu xasaf gi nga xasaf xarafu ràgg ba ko inlaal lañ koy tuddee kon inlaal ci xarafu ràgg lay dugg benn nga changé ko def ko beneen xaraf wala nga sukkoon ko wala nga xasaf ko yooyu yëpp inlaal lañ koy tuddee kon fa an waaw xeeti inlaal yi salaasatu ñett lañ alqalbu changé xarafu ràgg def ko beneen ràgg wala iskaanu def ko beneen xaraf wala iskaanu wala nga sukkoon xarafu ràgg ba wala xasfu wala nga xasaf xarafu ràgg ba lii la ñuy tuddee inlaal ibdaal moo ko gën a yaatu واما الابدال فهم جعلوا مطلق حرف موي داف لون جويري حرف مكان اخر تي بن برب لنن ابدال موم موي نجي حرف رك تك سي بن حرف حرف بو وتي حرف رك ابدال لنج كاي تودي مو خم لا افراغ nga dagam du du harfu fek فقال جم جن بإطلاق تجوال الإعلال بالقلب ومن دينغا جل حرفتك barab xaraf loolu génne na inlaal inlaal nga xam ne mooy changé xarafu raag gi teg si beneen xaraf boo doon ko tënk moom xarafu raag ngay dindi def beneen xaraf kooku dañ koo tënk fii ne dañ koo jooyal ibdaal dañ koo jooyal kon inlaal bokku ci ibdaal moom mooy teg xaraf ci xaraf xaraf nga dagg lu mu mën a doon rek ibdaal hmm? dégg bokkuñ lixtisaas yi ngir jagoo guñ jagoo moom inlaal bi xarfil illati ci arafu ci arafu raaj inlaal arafu raaj problème fa kullu inlaalin bépp inlaal yu xaal dañu wax loo ñëw ko ibdaal ibdaal moom moo gën a matale ibdaal moom mooy saasi xaraf teg fi beneen xaraf rek inlaal nag mooy saasi xarafu ràgg teg fi beneen xaraf wala nga sukkoon xarafu ràgg wala nga xadul kon inlaal goo gis mën nañ ko tuddee ibdaal wala aks du safaan ba waaye nag du ibdaal gu ne rek mën nañ ko tuddee bokkul hmm. <coughs> dégg ko defee ibdaal moom mooy changé xaraf teg fa xaraf ak loo mën a changé inlaal nag mooy changé fu ràgg teg fa benn xaraf kon ibdaal bu ne mën nañ ko tuddee inlaal waaye inlaal gu ne mën nañ ko ibdaal is ngir yëg tamit an danañ dajaloo fii nax wi xaala ci lu mel ni xaala ak rama xaala xawala la woon xawala xawala moo doon ci du saas nañ waaw gi def ko alif kooku ibdaal la changé nga araf teg fa beneen araf waaye in laal la tamit changé nga araf ràgg def fa alif rama rama yàlla woon nga changé yaa nga def ko alif kooku in laal la waaye changé nga araf teg fa beneen araf ibdaal la kon foofu ibdaal ak in laal dajee nañ fa ndax changé araf ràgg teg fa beneen araf mu ngi fa waaye changé araf def fa beneen araf mu ngi fa ibdaal itlaaq la luñ jooyal la saa yoo changé araf teg fa araf rek ibdaal lañ koy changé lañ koy tuddee boo changé xarafu ràgg na teg fa beneen kooku inlaal lañ koy tuddee dégg nga wayen faridu dana wéet al ibdaalu ibdaal fii naxwi ci lu mel ni istabara gi firi muñ na iddakara gi firi fàttaliku na kooku ibdaal rek fi nekk waaye in laa nekku ak intab ak kooku xarafu ràgg nekku fa maanaam baat bu dee dafa commencé num turati nga tëgg ko iftan la wala mu commencé soit lay bëgg wax sabara mu na soit la commencé nga tëgg ko iftan la dafa nekk istabara ta tànk mais taago da nga koy changé taabu da nga koy changé ta tànk taabu ta masque bu am tomb doon sabara nga dëkk iftaala istabaral war comme ni ñu waxee euh, iktat euh, ixtataba dégg nga dégg nga taxan na hmm? waaye taatànk boobu dañ koy taatom boobu dañ koy changé def ko taatànk muy ibdaal lañ koy tuddee ndax taa nga changé def ko too kooku ibdaal lañ koy tuddee mais dañ ko tuddee eelaal parce que changé naka noonu zakara nga def ko iftaala taagoogu man nga da koy da koy changé def ko def ko daal ko defee nag muy is dakara nga is dakara dégg nga waaw man nga ko def nag iddakan ñu ko ñaari daaw idgaam ko mu nekk iddakara yooyu danañ ci jàng dégg nga iddakara naa nekk tamit iddakara kon foofu saase nga taa def ko daal loolu ibdaal lañ koy tuddee waaye ko tuddee kon soo saasee taa def ko taa tànk taa tomb nga def ko taa tànk wala dégg nga taa tomb nga def ko daal iz takara nga def ko iz id dakara id dakara nag moo doon cosaan la id dakara loolu taa nga changé def ko daal kooku ib daal rek la tudd waaye du eelaal waqaraja génn bil makaani ci ne nga jël xaraf teg ko barab xaraf al iwat kon am na lu ñu tuddee ib daal ilaal iwat fa qad yakun daa nekk moom iwat fi xeyril makaanil mu awat ci lu dul barab bu lañ ko remplacé mbind ci moom dégg nga kata ay iddatun xam nga waada waaw ga lañ dagg ca masdar ma ñu ko muy taa ci mujj ko loolu iwad lañ koy tuddee ibdaal moom xaraf bi nga changé beneen xaraf bi nga indi foofu nga koy teg loolu la moo xam xarafu ràgg la wala la ilaal tamit xaraf bi nga changé beneen bi nga indi foofu nga koy teg waaye nag ci xarafu ràgg rek lay nekk xaraf bi nga changé bu ràgg rek iwad nag moom changé la xaraf remplacé ko beneen xaraf ak foo ko mën a remplacé rek baax na moo tax waada masdar ma dañ dañoo jël waaw gi remplacé ko taa muy iddatu xam nga waaw gi ci commencement bi la nekkoon mais taa gi sa mujj ga la nekk loolu xewar lañ ko tudde dañ ko tudde ibdaal ak istiqaamatun xam nga istiqaamatun istiqwaamun la waroon a doon parce que xaw ma moo doon ci istiqwaamun mu ne arafu raag bi maas la ko jiitu sukkoon te wér jaatul mooy xaaf googu waaw gi moom maas xaaf gi wér léegi da ngay jël waa maas ko waaw gi yokk xaaf gi dafay nekk istiqaa xam nga foofu ñaari alif daje na nga dagg alif googu noonu sa euh, remplacé ko taaca mujj mu nekk istiqaamatun fi nga ko daggee ak fi nga ko remplacé du benn loolu xewat lañ koy tudde kon am ibdaal mooy changé araf teg ci xaraf ak nu fu ko mën a changé waaye nag fa nga changé xaraf ba fa nga koy teg fépp daal la am na lu ñuy tuddee inlaal mooy changé xaraf wala nga teg fa beneen xaraf am na lu ñuy tuddee nag wat mooy changé xaraf remplacé ko beneen xaraf waaye mën na nekk ci fudul barabam barab bi nga changé mën nga koo remplacé fudul foofu wa hamsatu hamsa tey ibnu ak ñaari hamsa ibnu wa ismun dégg nga xam nga ismu ak ibnu sumuwu lañ lañ lañ jugee waaw googu moom lañ jël remplacé ko amza waaw gi ci mujj gi la nekkoon ak banawun waaw gi ci mujj gi la nekkoon ñu jël ko remplacé ko ci commencement ba loolu xewat lañ koy tuddee ismu boo ko defee ci sa da naan banu nangam waaw fa waaw gi ci mujj gi la nekkoon ديال كو داك كو ريف كو امزه تي كوماس نوب اسمو تميت سمو بو موي سان وقال وانا على شموني قد يدل قدرن جويل الابدال ابدال على ما يعم جي واخ من مثل القلب سادة لان الابدال لا ابدال ازاله موي ديندي رك حرف تك فارف والقلب قلبنا احاله موي سادة حرف داف كو بنن حرف ابدال مو من غا ديندي حرف تك في بنن xalbu nag nga changé comme si nekkoon waaw nga changé ko def ko mooy xalbu mais ibdaal duggalaale na xalbu rek laa nal ixaala ndax nekk illaa bayna asiyaa lu mooy si diggante mbir yi al mutamaasila dégg nga xarafu léegi nag la jiitu lan la xaaf xaaf lu mën a lu mën a tolloog alif ñu changé waaw gi def ko alif foofu lay xal bu di ixaala di amee parce que waaw ak fata dëppoowuñ waaw lu mu dëppoog alif kon waaw gi foo ñu changé ko kii kon fata lu mu dëppoog alif kon waaw gi foo ñu changé ko def ko alif loolu si yooyu lay ixaala di nekkee wa min sama foofoo tax ixtasa jagoon a moom ixaala e, bi xurufil illa ci ay firaq yi ixaala mooy ilaaj rek wala hamza ak ci hamza foofu la jagoo na annaha ndax moom tuqaaribuha dafay niroog xarafi raag yi bi kasrati taxyiri ci bëri soppeeku hamza moom xarafi raag yi xaw a niroo ci changement gu bëri gi ñu am moo tax hamza dana yu bëree bëri bëri xam nga tey moom la doon def fa hamza sama un gis nga xalaa idul bañ ko changé am lañ fa def moom it day dugg ci araf rag yi lu bëri bëri xam nga danañ ci ñëw kon ñett lañ jàngale moo am inlaal mooy changer araf rag dafa benn xaraf ibdaal nag mooy changer araf dafa benn xaraf iwat nag mooy changer araf xaraf waaye moom xaraf yi nga changé fa mu nekkoon ak ba nga def fa mu nekk mën nañoo nekk bañ a nekk benn waalam xamal ana a xuruuf na xaraf alati nga xam ne tubdal danañ ko changé min xëyraa ci lu dul moom salaatul aqsaam ñetti xaaj arab yi nga xam ne danañ ko dindi teg fa yeneen ñetti xaaj maa yu dalu loo xam ne danañ ko changé ibdaalan changé chaayan bu siiw waaye li idgham idgham moo ko waral idgham mooy jël xaraf sukkoon ko ci beneen dugal ko ci beneen xaraf yooyu taxuñ ko taxuñ ñoo wax loolu moom siiw na ci langue arabe mais idgham moo waral wowuloolu jëmee xuruf mboolem xaraf yi danañ idgham xaraf ci xaraf mboolem xaraf idgham da ci dugg ilal alif alif moom idgham di ci dugg parce que xëccaan la mais yeneen xaraf yëpp idgham da ci dugg yooyu danañ ci ñëw wa maa yubdilu ak nu ñuy changé ibdaan ibdaalan changé naadiran gu néew woo moom sittatu xarafin juróom ahrufin juróom benn xaraf la alxaa ak xaa ak ayn muhmala guñ neenal gi ak xaaf ak daat ak zaal موجة متانة دون توم بي مانام أبو أنا زال الدار جلينكو توم ومن عين مهما رفت مثلا جو غين لا أمنا ينتيري يجل غين حرف يو يسادكو لنيو لكي بات أرب كقولهم في وكنتم وهي بيت القتا موي نيغو برنتان في الجبل شدت نيغو برنتان بنيغو زغنين وقنتم gis nga kaaf boo gisee mu remplace xaraf rek xamal na loolu bëriwul bëriwul xaraf yii ñu remplace xaraf loolu néew la ci langue arab moo tax kaaf gi remplace na kaaf gi loolu bëriwul wokku tun loolu néew na axan mooy nu nëtëx léeg-léeg ñu ne ko axan kon xaa gi remplace na xayin xamal na bëriwul ak rubon léeg-léeg ruba léñu ruba dégg xaa gi remplace na ayn xaa lu mu remplace bëriwul xatar ñu ne xatar léeg-léeg ñu wax loolu xayn gi remplace na xaa gi xayn lu muy remplace bëriwul jald léeg-léeg ko xast gi remplace na laam soit lu muy remplace na bëriwul talaasama léeg-léeg zaat gi zaal gi لامبراز لامبراز زاجي زال زاد زال من لامبراز بدل كن حا ولا خا ولا عين ولا غين من قوتي ولا ولا قاف ولا ضاد ولا زال حرفي لي لامبراز بدل نوم لن تنكي قد خاب ذو ظلم دا علمه غيا قد خاب ما قاف ذو ظلم ما ذات أجزال دل وذال داع بطل حلمه حار غين غين أما نرف حيا عين حلمه مو حاجة خاب خاب دي مو مو خاجة دين zulmin tamit moom andiwu ko am nañu ko ci boole dégg nga xaraf yii li ñuy remplace bëriwut kon bu ko xiyaas kooku boo gisee arab yi def ko nga def ko boo gisul nga ba wa maa yubdal ak lu ñuy remplace ibdaala remplace shay'an gu siw waaye li xëy idghaamin idghaam waralul ko am na xaraf yoo xam ne yenn yi danañ taxaw ci barabu yenn waaye idgham waralut ko mais danañu remplaçante lu bëree bëri woowu moom isna waaye suru na harfan ñaar fukki harf ak ñaar la yej moo dana ko dajale xawlu ko sa wax li jiddin surif shaksun aminun wala boog aminun tayya saw bi izzatihi baat yi nag takk ko rek lañ ci nam li jiddin surif ngir góorgóorlu guñ guñ génne saksun loolu moo war a saksu aminun aji wóoru la bi izzati lemoo gi yëre teranga maanaam teranga bu mu nekkoon hmm? kon da nga koy jàppee nit rek wala wala ab nit ab kii daal kuy góorgóorlu waaye jàppal ne jiim daal saat raa ak faa ak shiin ak kaaf ak siin ak alif ak miim ak nuun ak taa ak yaa ak saa ak waaw ak baa ak ayn dégg nga moo tax kon ayn duñ ko boole ci yére ak zaay ak taa ak ha kon moom wal xayn la waroon def xaraf yi ñoom dañuy remplace lu bëree bëri bëri xaraf yi bëri na lu ñuy ñëw ci langue araab yi ñu leen soppi di teg yeneen xaraf yii dañuy sopp dañuy euh, wutante seen biir wa daruri yu mënul ñàkk minaas ñoom fi tasrif bi ci sarfu tisaatu ahrufin juróom-ñeenti araf la am na juróom-ñeenti araf yoo xam ne moom changé leen waajib lay doon ci sart ci ñaar fukki araf ñaar yi yej mu waa dana ko dajale xawlu ko sa hadatu muutiyan dégg nga araf yi remplaçante te remplace di nekk lu war mooy ha ak daal ak alif ak ta miim waaw toa ak yaa ak alif moo tax léeg-léeg nga dégg ñu ne léeg-léeg yaa dañ koy changé ci lu war def ko hamza kooku waajib la léeg-léeg ñu jël waaw changé ko dégg nga istabara gis nga taa noonu taa tomb gi def nañ ko taa gu gu tànk waajiban yooyu dafay am lu bare bëri yooyu moom juróom-ñeent yi rek kon moom ngay takk daanaka moom lañuy jàng ci xalbu lu dul loolu rek sama yi la laam bokk ci juróom-ñeenti xaraf yi hadaatu muutiyan kon laam léegi-léegi mu remplace xaraf waaye bëriwut léegi-léegi ñu remplace ko tamit waaye bëriwut amaa juróom-ñeenti xaraf yi moom dañ jàngal benn par benn benn bu nekk fañ ko war a soppee wuju ban waaw wa ma adaa lu dul juróom-ñeenti yi fa ibdaaloo changé ko xëy na nekkul lu mën nekkul lu war fii ci moom yaa nga xam ne ma bëgg dafa am juróom benn xaraf yoo xam ni ñoom di ko changé di fa teg yeneen xaraf wala ñuy remplacé yeneen xaraf bëriwut am fukk ak ñaar yoo xam ni nag bari na arab yi di ci soppi waaye nag warut am juróom-ñeent yoo xam moom soppi gi lu war lay doon yooyu dana ko jàngale mu joxe misaal yi nga xam ne nga soppi waru ka xawli usaylaan tasxiiru uslaan bi dam alama zahaba ci la dem na ilay jëm si wàllu kufi yoon ñu ne ne uslaan lañ tasri def ko usaylaan jamu asil aw huwa tasgiru asil ñu ne déedéet tasgiru asil la asil mooy lan woomu al waxtu mooy waxtu baada asri usaylaan la ñu waroon wax ñu ne usaylaal léegi luñ def nun gi lañ changé def ko laam nun ak laam di wecci wante am na waaye nekkul waajib xam nga nun bokkul si xarafi hadaytu muutiyan laam tamit bokkul si ah waaye nag nuun ak laam yëpp waxoon na ne ci xaraf yi soppi ci lu gën a bëri ci la bokk kon ñuy wecci wante ñoom ñaar loolu bëri na ci arab yi ñu ko def nuun ak laam di wecci wante waaye nag du lu war bëri na xam nga nuun bokk ci xarafi hadaytu muutiyan laam yi bokku si gis nga kon xanaa fi ñuy wecci wante mooy xaddaatu muutiyan ci lu war yi nga xam ni bëri na mooy yële ya nga xam ni néew na mooy juróom benn la wa fi ittajaa isa naama ñu ne iltajaa wala xarafi xadaytu muutiyan daat bokkuti laam bokkuti fii daat gi nga sànni def ko laam muy iltajaa daat gi nga sànni def ko laam daat ak laam di wecci wante bëri na ci arab waaye du lu war nag daa xamuloo wa fi naaw alaman wa fi mm, waqfi dégg nga booy taxaw aw majra wala daw na majraahu eh, daw waaye taxaw boo ci taxaw ci aliyun danga naan aliyun alijun jun yaa bokk na ci arab yi changé waaye jiim moom bokkul ci arab yi nga xam ni danay euh, maanaam danay taxaw taxawaayu xaraf ci lu war jiim jiim ci la jiddun la bokkoon hmm? waaye fii yaa nga changé def fi jiim bokk na ci soppeeku lu bari dégg nga waaye moom dafay taxaw taxawaayu xaraf léegi-léegi ci lu war mais jiim moom du taxaw taxawaayu xaraf ci lu war xalli yun nga def ko xalli jun biib daal nuun yi da ngaa changé nuun gi laamal muy laam ci usay laam fil awla ci bu njëkk bi wa daadu daat gi laamal nga def ko laam fi saani ci bu ñaare bi ci ittajaan wala yaaw yaa gi jiimal nga def ko jiim fi saalis ci bu ñetteel te nuun ak laam ak jiim xam nga ne danañu taxaw taxawaay xaraf ci lu bari ci langue arab waaye du nekk lu war na kon li nga mën a dégg mooy juróom benn xaraf yi la ma jàngaloon la jël ko mooy xaa ak xaa ak xayin ak xaaf ak daat ak zaal ñu génne xaraf taaj leen fa waaye bëriwut yeneen ñaar fukki xaraf ak ñaar yi dañuy ñu génne taaj leen fa mooy laam ak jiim ak daat boobu la jiddum surif chek sun amin aminun tayal taw taaj leen fa mu bëri lool waaye nag du toujours lay nekk amma hadaatu muuteen léeg-léegi nag dafay war ñu dagg xaraf bu tàj fu benn ci xaraf yi foofu moom waajib lay doon kon yii remplace xaraf ñetti xaaj la am na yoo xam ne dafa néew ñi remplace xaraf am na yoo xam ne bëri na waaye du waajib am na yoo xam ne nag bëri na te waajib lay doon mu joxe nag misaal ci nga xam ne ni eh, dafa néew mu ne wukkanatun gis nga def nañ wukkanatun def nañ fa xaaf xaaf muy remplace xaraf bëriwut mu joxe misaal ci yu bëri nga xam danañ remplace xaraf ci lu bëri waaye nag du waajib mu joxe ci usay laal laam remplace xaraf bëriwut foofu remplace nu nuun iltaja laam remplace xaraf bëriwut na fu daat ali jun jiim remplace na yaafi si yaa ngi seet kon yi remplace xaraf ñetti xaaj la yu néew wala yu bëri tawarut wala yu bari ta war yu bari ta te war wow, tey xam nga jang waaw alif so jang ko ci mutiya alif a ko la alif am place na waaw ram place go waji man la de wujuban la sama un, nga sama un gis nga am sa gi place na waaw ay ram place go wajib la de kon place benn yooyu danañ danañ jàng yii benn bu nekk fu ñuy ñëwee taxaw taxawaay beneen xarafu jëm ma xam nga ne ma bëgg a wax fii kon liñ jàngaale lépp lépp lépp lépp mooy lan mooy ñett moo am inlaal mooy saasi xarafu ràgg teg fa beneen ibdaal mooy saasi xaraf teg fa beneen xaraf iwat nag mooy saasi xaraf teg fa beneen xaraf waaye nag xaraf wi wi nga wi nga remplace fa mu nekk ak xaraf bi fa mu nekk mën nañoo bañ a nekk xaraf yi remplace la ñetti xaalis lañ am na yoo xam ne dafa néew ñuy remplace xaraf mooy juróom-benn yi ñu tudd am yoo xam ne bëri na waaye du wujuban mooy fukk ak ñaari fukk ak ñaari am juróom-ñeent yoo xam ne ban lay doon ngay dagg xaraf teg leen fa ñëw. a woon annaabi dafay joxe misaal ne ci usay laal ne waqaftu taxaw naa fiha usay laalan ci ngoon foofu nuuna fa nekkoon. laam remplace xaraf bëriwut usailuha may laajanteeg moom ayat jawaaban wa ma bi rabi min ahadin ayat lot na ci tontu ma bi rabi nekkul ci pàkk ba min ahadin ci kenn ci ngoon di waxanteeg pàkk bi di ko laaj waaye mënuma tontu na kenn nekku fa foofu usay laal andi na misaal fu laam remplacé mais laam ci xaraf yi la jiddin la bokkoon bokkut ci juróom benn xaraf yi ñu kon laam laam li muy remplacé xaraf bëri na waaye waajib Mansour bun Habba al asadi wax na fii zibin ci til ne na maa raa an laa daa wala shiba maa la ilaa artaati xeqfin faltaja faltaja fattaja la woon mu indi lam foofu ba mu gisee ne laa daa amul naflaay wala shiba amul lum lekk ba suur dafa dem ci maa la jàng ne ilaa artaati xeqfin ci tund benn rek mu tëdd fa faltaja gis nga indi na fu laam remplacé laam ni mi remplacé bëriwul wa xaala axar keneen ne xaali woyfun wa abu ali aliyin la war a wax yaa ngi ne remplace daf ko jiim jiim li muy remplace bëriwul al mutimaani laxmi bil asij bil asiyi ci ngoon yaa ngi ñu sa remplace daf ko jiim mu ne sama nijaay mooy Uwayf ak abu ali ñi nga xam ne ñooy leeral yàpp ca ngoon ga bil asij bi wa abu ali yuri lal na mu aba ali ak asiy watu sama dañ tudde haadi luxa aj aja aj ajatu qudaa moom lañ ko tuddee wastarata sa xam nga yooyu dañoo baadum ñenn ñi fiyaa ci loolu an takuna mu nekk al jiimu jiim gi masbuqatan di leen jiital mm, bi ayni maanaam jiim gi nga remplace li nga remplace jiim foo ayn jiitu ko yaa gi nekk su mujj ga nga remplace ko jiim foo jiitu ko alij ashi asij ayn moo jiitu am wa baadum ñenn ñu yutlaq dañuy jooyal nag lépp loo xam ni yaar rek ci mujj gi rek mën nga ko remplacer jim boo ci taxawee nag xam nga boo ci taxawee lañ wax wala loo xam ni ñu taxaw na taxawaay taxaw mustadilan nga ñu tegtaroo bi qawli baadi ahli yaman ne laahumma ay ay ay allahumma yóbbur yàlla in kunta qabilta xaj xajja tij xajja tii la woon ñu ne xajja tij yaa ngi def nañ ko jiim ayin jiituwut fala yazaalu yàlla bu mu dañ saaxijun ak baax la yaati ka di la andil bic ci man bii yàlla soo nangoo sama aj gi yàlla bu ma dañ di ñëw di aj baax la di ma indi baax ma baax la goo xam ne ak mar gu weex la naxaatun gi aji sabaakoon dégg nga yu nas yi dana yëngal wafra tij ay wafra tii sama karaw wafra tii ñu ne wafra tij kon am ñu ne daal yaa gi boo ci taxawee mën ngoo sax def ko jiim mais jiim nag di remplacer xaraf bëriwul kii kon bëri na kon waaye nekkut waajib jiim remplacer xaraf boo xam ne naan jiim gi da ko war a remplacer waajiban amul xaraf yi nga xam ne ñoo war a remplacer wujuban mooy yi xarafu hadatu mu tiya yaa xam ne mu bëgg a foofu léegi la mu war a yi nga xam ne wax na la dañuy remplacer wujuban yooyu la lay moo tax Ibnu Malik boo koy jàng moo xaraf yooyu la lay jàng xaraf hadatu mu tiya bu nekk fu muy remplacé parce que yooyu rek ñooñu nga xam ne ñoo remplacé wujju bon yu dul yooyu nag nga xam ko baax na moom mu teqalee la ko comme nii mais doo si xiyaas dara daal moo tax bu defee nag mu war a jàngat al i'laal fil hamza hmm? fan na hamza ñëwee di remplacé ay xaraf wujuban noonu la koy toppee ba a jeex إن أريد الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته